Boubacar Seye maa ngi lay nuyu. Ndeye Comba maa ngi lay fay. Boubacar Seye nga nekk chercheur et consultant en migration internationale président bu Horizon sans frontières laaj bu njëkk euh, buuru Maroc di ñëw fii ci Sénégal euh, naka nga gisee visitu euh, buuru Maroc bi fii ci Sénégal. waaw xam nga Maroc ak Sénégal moom dama wax ni ñoom dañuy ñu ngi ci ay relations multidimensionnelles. multiséculaire et même multiculturel Maroc mooy mooy Sénégal euh, kon tey que le roi di ñëw Sénégal te tax je rappelle que mu ngi ci neuvième voyage am au Sénégal depuis son accession au trône donc moom fii dëkkam la donc du ñu daf lu dul euh, souhaiter ko le bienvenu voilà di di rafetlu quand même euh, ce choix là du Sénégal hein donc loolu ñun dañ koy rafetlu visite bi donc on l'attend avec beaucoup d'enthousiasme parce que fii dëkkam la mhm. yow ñu gis ne Boubacar Seye da ngay apprécier lu bëree bari euh, buuru Maroc bi lan moo waral nga koy apprécier voilà waaw xam nga moom dafa dafa am benn casquette boo xam ni euh, tey Afrique moo ko soxla euh, vu les enjeux géopolitiques géoéconomique et écostratégique parce que tey boo xoolee adduna bi yëpp ñu ngi organisé wu Afrique rek moo des Afrique nit dañ koy utiliser bu subaa nga dégg sommet Europe Afrique sommet Inde Inde Afrique sommet Chine Afrique Afrique moom dañu ñëw rek natt ko di dem kon tey dama jàpp ni euh, il nous faut en Afrique ku mel ni le roi Mohamed VI muy tirer locomotive africaine vers l'émergence comme ni ñu koy waxee ku mel ni le roi Mohamed VI mu wane fulla africain yi xam li ñu am pour mën a ensemble euh, faire face aux défis de cette mondialisation te moom il est le leader inné et naturel parce que boo xoolee les dirigeants africains là dafa mel ni dañu bàyyi l'essentiel li leen intéressé c'est des problèmes de mandat donc la particularité du roi Mohamed VI hein mooy moom amul problème mu mandat mm-hmm. moo tax tey moom mu war a jël su dossier là boo xoolee comme ni nga ko waxee ñun boo xoolee boobu ba léegi ñun ñu ngi pousser le Maroc vers vers vers li nga wax nii et je me réjouis sax bi nga ni boo xoolee man toujours damay wax ci waa bi. Mm-hmm. parce que ñeneen ñi taluñu ko au moment où la jeunesse meurt wala yeneen défi ñoom li leen intéressé mooy nguur mais roi bi am problème boobu moo tax moom nag il faut que mu mu xam. cër bi nga xam ni yàlla jox na ko ci àddina bi cër bi nga xam ni tamit ñu mel ni ñun nangul nañ ko ko pour que ensemble quand même ñu mën a jël des dispositions pour mën a unifier le continent parce que tey il est temps que les Africains fassent taire les intérêts générationnels bàyyi xeex bi ak xuloo bi ànd nekk benn mhm. sur l'essentiel pour que ensemble tey ñu mën a génn l'Afrique dans dans dans dans sous développement bi mu nekk ak l' extrême pauvreté bu nekk loolu moo tax ñu ñu rafetlu di di di di di pousser le Maroc pour mu xam ni roi bi il a un rôle essentiel à jouer quand même pour unifier l' Afrique pour que qu'on fasse qu'on fasse euh, euh on appelle euh, ñu mën a avancer euh, vers des défis loolu nag dama jàpp ni moom rek ah en tout cas fii daal moom moo am profil boobu c' est le leader naturel et inné. Mhm. waaw et incontestable aussi. voilà man loolu laa gis. ci ñëwum bi fii ci Sénégal lan nga siy xaar Boubacar Seye buuru Maroc ci Sénégal loo ciy xaar ci visite bi surtout. waaw liñ ci xaar bëri parce que gis nga tey au moment où je vous parle euh, nit ñi may signaler depuis démb que lu tolloo ci mille jeunes africains subsahariens wax nañ ni yaa ci biir am na quarante et un sénégalais trois cent soixante cinq guinéens trois cent un maliens pratiquement toute l' Afrique ñoom ñëpp ña nga fa bloqué à Samaka frontière euh, Algérie ak euh, Niger ñu la police algérienne expulsé leen ci désert bi ñu sonn nekk dans une situation d' extrême urgence téléphone sax yoratuñ ko dañuy dox ba egg à Samaka di nga dox lu mat quinze minutes ci àll bi comme tey visite bi su coïncider avec alerte boobu ak coono yooyu nga xam ni damay wax ni c' est une situation récurrente yàgg nañu traité loolu ñu ne jéem sur ce sur ce dossier migratoire là kon tey li ñu doon xaar li ñuy gën a xaar tey ci ci ci ci ci ci roi bi mu lancer l'initiative africaine sur les migrations internationales non seulement pour régler euh, euh, la problématique euh, liée à la mobilité parce que tey dañu nekk dans un contexte de mobilité ñëppay tukki du jéem a xool nan la ñuy mën a avancé faire avancer la grille de réflexion lan moo a nekk la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé parce que tey dañu nekk ci mondialisation des flux migratoires nan la ñu mën a def tey pour mën a jël gën en charge Euh, cette jeunesse là bi nga xam ni tey amatul espoir gëmatul nit mën na fi tekki jeunesse bi nga xam ni tey richesse la devenue un fardeau pour les états pour les dirigeants africains jeunesse bi nga xam ni tey yaakaar ni solution mooy dee ci désert bi wala dee ci géej gi loolu du solution lan la ñu mën a fexe tey ba ba ba ba redonner l' espoir à cette jeunesse loolu moom la ñuy xaar ci moom te dama jàpp ni euh, tey au chapitre des migrations internationales tey le roi et incontournablement la personne euh, bi nga xam ni tey moo mën a poser débat ici en Afrique et à travers le monde pour que xale yi kat gën seen bopp xam ni kat leur avenir est ici donc ñun bokk na ci li xaar ci moom. Mm-hmm. Euh, ñu wax tuuti ci sénégalais yi nekk fële ca Maroc souvent dañuy wax ay difficultés euh, d'intégration ay jafe-jafe ngir am ay papiers loolu lan nga si mën a wax Boubacar Seye. bon xam nga euh, Maroc dafa nekk tey euh, non seulement terre yi mais euh, de transit pour beaucoup de damay wax sax ay millions d'Africains ay doomu nit ku ñuul des milliers aussi de Sénégalais parce que tey li li dëkk nekk ay li nekk ay Sénégalais di dund Maroc yaa xam da nga fa dem pour toog yaa xam da nga fa dem pour jàll kenn mënu la wax lu mu toll kon tey dama jàpp ni damay faral di wax ni sax euh, lépp mu ngi tënku ci intégration mooy lëkkaloo ak yaatal bi ñu war a yaatal gan yi parce que euh, sans intégration kenn mënul wax immigration intégration nag mooy war a nekk processus à double sens bi nga xam ne mooy mooy tënk migrants yi ak ñi ñu fekk si ñu ñu ñu tëgg ko dans une relation constructive aboutissant euh, boo xam ni respect ak tolérance mutuelle donc il faut renforcer les processus d'intégration structurelle yaatal bi ñu war a yaatal gan yi ci wàllu dëkkuwaay ci wàllu liggéey ci wàllu faju yooyu yëpp tey moo war a nekk tey le débat bi et at yi passé euh, je me rappelle le loi avait donné des des instructions pour que ñu gën a renforcer l'intégration des Africains ñun ñu ko doon rafetlu je crois que tey ci loolu la ñu war a avancer loolu la ñu war a gën a pousse ba nga xam ni bépp Africain su duggee Maroc euh, danaan mankat kat euh, du du mën a mën a def la différence entre Maroc ak dëkkam parce que nag Maroc li mu mën a jouer comme ni ma ko waxee euh, Afrique en termes d' économique en termes de de de circulation de libre circulation en termes de paix et sécurité dafa bëri moo tax ñu ngi leen euh, peut-être euh, laaj bu mujj euh, ci wàllum émigration irrégulière euh, ban rôle la si Maroc war a jouer Boubacar Seye. waaw xam nga comme ni ma ko waxee léegi mm. Maroc Euh, dafa nekk un laboratoire de mixité et de migration tey hmm. boo demee Maroc di nga fa fekk nationalité yëpp communauté africaine yëpp ah ak communauté même européenne parce que euh, dëkk yu bëri sax euh, entreprise européenne yu bëri dañuy délocaliser wu ci biir Maroc pour kon Maroc laboratoire la et en termes de gouvernance globale au chapitre des migrations internationales le Maroc a war naa joxe leçon ba tax na xaar ci ci ci Maroc ci loi bi rapidement population d'une réunion africaine sur bi nga xam ne tey nekk un élément de la géopolitique mondiale mobilité croissante ak un contexte géopolitique bi nga xam ne et marqué par la gestion scandaleuse du triptyque immigration paix et sécurité ñett baat yooyu que Horizon Sans Frontières a mis en exergue moom moo yore la géopolitique mondiale boo dégloo immigration paix ak sécurité ngay dégg ci lépp kon tey pour ñu xoolaat loolu le Maroc war na ci mën a jouer un grand rôle ci àddina bi ak ci biir Afrique euh, li koy indi nag ci biir Afrique mooy euh, africains yi fexe euh, mu am une harmonisation de ces positions là pour que mu am une architecture de paix et de sécurité entre les peuples pour jàmm am te boo xoolee euh, jéego yi waaye roi bi doon teg pour un développement humain durable yooyu yëpp dafay dem dans ce sens là léegi nag li ñu ko war a tey mooy mu lancer l'initiative africaine sur ces migrations internationales mu am une harmonisation des positions euh, dans ce domaine mu am une architecture de paix et de sécurité alors pour que euh, euh, tous ces défis là ñu mën a sur euh, chaque défi teg des stratégies pour xool nan la ñu mën a fexee ba yokk koom-koomu Afrique nan la ñu mën a fexee ba doomu Afrique yi xam ni leur avenir est ici nan la ñu mën a lutter contre l'extrême pauvreté nan la ñu a euh, lutter contre euh, le chômage endémique des jeunes les tares de la mauvaise gouvernance yooyu yëpp tey dafa war a nekk un débat de fond la migration doit être au au cœur des préoccupations en Afrique le Maroc man moom laa fi gis Euh, koo xam ni tey normalement wax naa mën a poser ce débat là comme ni ma ko waxee parce que le roi dafa am un statut particulier boo xam ne yeneen yeneen dirigeant africain yi ko parce que ñooñu lu ci bëri ici ici euh, li leen li leen gën a soxal mooy ces histoires de mandat boo xoolee Afrique yëpp tey loolu sax moo indi xeex yi tey dans tout l' Afrique amul fenn ko am stabilité parce que ku ñëw rek toog doo bëgg a kon moom amul problème boobu ñun loolu la ñuy xaar ci moom et je crois que euh, tey Euh, ensemble ñu toog diagnostic parce que da ngay dégg ay sommet Afrique euh, Asie euh, ay sommet Europe Asie ay sommet Inde Asie africain daal mooy neex mooy neex bi nga xam ne ku nekk moom li mu yore kenn mënu la wax li mu yore ci ay richesse mais moom du ci profité dara ay nit ay ñëw nag di ko dem kon nag tey je crois que loolu moo loolu moo ñun pour ñun loolu la ñuy roi Mohamed VI mu xam ni kat moom ñii am na cër bu ko yàlla jox ci biir Afrique cere boobu nag mooy ñu fexe ba africain yi tekk benn ñu ñu ñu dindi ñirgurloo bi ànd pour mën a xeex ensemble ndóol pour mën a lancer euh, euh, le continent sur les rails euh, de l'émergence ñun foofu la ñuy xaaree le roi Mohamed VI ñëpp ànd jàpp ko ci nangul ko aussi ce leadership naturel là parce que ñeneen ñi amuñu ko voilà Boubacar Seye Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité. Mame Coumba man mii maa di fay di nuyu ñëpp di leen sant di leen dans ce dossier migratoire. voilà may fàttali ni chercheur nga et consultant en migration internationale président bu ONG Horizon sans frontières Horizon sans frontières.